dikkati naa dëgg-dëgg wolof njaay léebam daanaka dëgg la nee woon na yàlla yàlla bay sa tool libération yéeni kaay ma accident am nañu ne ndogalu yàlla la waaye loxol doomu aadama génnu ci benn ci bus bi nga xam ne dafa am accident te pënam daal di yàqu moom bus boobee yéeni kaay bi ne ma amul assurance yéeni kaay bi ne ma am na problème boo xam ne ca wisi technique ba ci ñaar ci benn ci bus de détecté nañ ko loolu tax na nag borom bus ba ci boppam saa si temba dina dem wuy ji enquêteurs yi tey nit ñi di faatu ci anam woo xam ni doy na waar lool Sud Quotidien ma moo taxit Amadou Ba mer na de daal dinay génnee bant bi nag ngir ku jàdd mu daal di la ciy wiccex ba maar day taali waaye itam daal di teg carotte ñu kejer kejer mu daal di ñuy neexal le quotidien le quotidien daal dina may mesure jël nañ ko de ca conseil interministériel ba le témoin yéen kaay na jëlal ci nañu ay mesure yeneen ndax nag 2017 jëloon nañ fukk ci mesure yéen kaay bi ne ma waaye bi bii 2022 la ñu jël 22 mesure vox populi ne ma ñaar fukki mesure ak ñaar yooyee fas yéene nag gàntal lépp luy accident ci réew mi Walf Quotidien ko ndëpp la woon amal nañ ab ndëpp goo xam ni gouvernement gu Sénégal ñoo ko amalante ci seenu biir tribune yéene kaay ne ma en tout cas ca conseil interministériel ba daal dinañ cay valider bépp proposition boo xam ne gëm sa bopp defoon na ko yéene kaay bi dee média bi ne ma daal dinañuy tere transport daw guddi diggante vingt deux heures cinq heures du matin daal dinañuy tere it ci réewum Sénégal le soleil yéene ci yoonu tere tribune ne ko lépp loo xam ne ay pneu yu yàqu la ñu andi ko ci réew mi tribune yéene kaay ne at bi ñuy joxe permis nit kuy transporter ay nit it daal dinañ ko yokk ba ñaar fukki at ak juróom fas nañu yéene taxaw taxawalit ay unité d'intervention médicale rapide ci route nationale yi transporteurs yi it weñ nañu seenug loxo ngir nag ñuy embauche ay chauffeur góor a xuma ci réew mi ko jee naan kon buñ jëloon chauffeur yëpp daal di faat du teree accident dina am ci réew mi tribune ne ko en tout cas gouvernement gaa ngay jël ay mesures nee na chauffeur si boppam tàggatu dañ ko war a def par force vitesse si transport en commun daan daanu ko yemale juróom-ñeent fukki kilomètres par heure fas yéene interdire lépp loo xam ne day yokki place ci biir en commun yi le témoin yéene day dakk le soleil yéen kaay ko du ñaar fukk ak ñaar de ñaar fukk ak ñett ci ay mesures la nguuru Sénégal daal di jël nee na daañu ubbi ay centre contrôle technique ci biir diiwaan yi nee na porte bagage ak Versailles dañu koy tere ko yokku léegi ci réew mi nee na képp kuy dawal deux roues da nga war a takk casque force ki nga àndalit bu de am na takki casque force lu ko moy daan ba tegu seen kaw le Témoin yéen kaay ne ko woto yi nga xam ne ay transport en commun lan nee ñu fukki at bu ko paasee dootuñu dawati ci réew mi yii porte bagage fukki ak juróom bu paasee dootuñu dawati ci réew mi mi korom ak fay ci vox populi nan sang réew mi deret ji waajagul sax pour tuuru bi jeex waajul nañu sang réew mi loolooy dëgg turbine yéene kaay ne en tout cas accident bi métti fan fanweer ak juróom-ñeent ci bakkan daal di ciy root téeméer ci doomu aadama am tey gaañu-gaañu ministre ba nga xam ne moo leen gàlloo di Mansour Faye anamu yéene kaay bi ne ma moom goro national bu président Macky Sall Mansour ci boppam accident bi bàyyi na ko fi ba tey fukk ak benn ci bébé ñoo daal di lakk Abdoulaye Diouf Sarr ñu nguufaan ko daal di tàbbal géej fa yàllaaw daal di gën accident wu ni toll mësta am ci réewum Sénégal xam ni mooy ministre des transports ba tey mi ngi taxaw ci réew mi di wax turbine mel ni ku naan koon Mansour kiyeeti 24 heures yéeni kaay ne ma Mansour Faye day nuroog laalaake Abdoulaye Diouf Sarr gisoon nañ ko fi waaye laataa Abdoulaye Diouf Sarr la joolaapam fi suuxee marine bi ak ñaar ciy ministre ak Abdoulaye Wade mi nga xam ni moo doon président ci boppam tëñ-tëñal nañ leen fu ne ñu doonoon tama ñu tullee leen bor Mansour Faye kenn dàqu ko Omar Youm ci direct news ne en tout cas état moo wareer sunu garantie ci lépp rawatina nag ci dem ak dikk gi Sénégal nag bay bayal moo ko yàq ñu war a organiser waa transport réglementé ko ngir intérêt supérieur bu nation bi Omar ne ñu ngi ci Sénégal goo xam ne ay chauffeur dañu leen di former sur le tas taaba taaba rek jàngal la dawal ay permis yoo xam ne dañ koy joxe ci anam woo xam ne yomb na lool ay mécaniciens informels yoo xam ne daanaka technologie da leen raw ay contrôle technique yoo xam ne amatul presque ay opérateurs xaalis moo leen gënal lépp lii nag waxuñu ci waaye bokk na ci lu jur accident yu bari ci réew mi Omar ne amal nañ deuil national gannaaw ñaan gi benn discours la ñu war a am ñun réewum Sénégal muy action ak sanction l'indépendant yéeni kaay ne ma sëriñ sangay àddu de moom sëriñ Muntaxa Mbàkke daal dinay ñaan sénégalais yi ñu daal di dal ñaanal ñi nga xam ne ñoo faatu ak ñi ci amee gaañu-gaañu jébbal ñeen fukki million ñen la roo ci accident ba xalif général des Tidiane di interpeller askan wi di sàkku si ñoom it ñu ànduk dal mi ngi jeexal doomu aadama yi moom xalif général des Layènes sëriñ Mamadou Makhtar Laye di jaale Sénégal di sàkku ñi nga xam ne ñooy dawalu oto ñu xoolaat seenug bopp daal di yokk yar gi ci tali gi waaye tam Sénégal ñu def seen kéemtalaay kattan ba lu mel gëj fi wala dootu fi amati l'observateur ne ma accident bàjjo bi daal nay yàq ay dund yu dul jeex kii nee na moom ba ma gisee sama tànk ci suufu benn kaar faatoo ma gënaloon dundu kii ne damaa handicapé ñaari yoon kii ne damaa daanoo ci bus ñu daal di dagg sama tànk ñetti at def naa ci l'hôpital liggéey ca UCAD Mamadou Niang mii ne accident moo ma jural ñu dagg sama loxo sama jabar dem yóbbaale samay doom l'observateur ne accident yaa ngi yàq doomu aadama yi di leen faat di yàq seenug dundin di yàq it ay gafa ndax lu toll ci fukk ak ñett jàpp fukk ak juróom ñetti milliards dinañ ko génnee at bu yàlla sàkk ci gafa ak assurance ngir jàppale ñu loru ci accident yi lii quotidien accident yi day loo ci manti déggit nguuru Sénégal dina ci ñàkk at bu yàlla sàkk téeméer ak juróom benn fukki milliards Dakar Times naan maan yokku nañ courant gi de waaye ay pàcc pàccee la du ñëpp la yéen kaay ne ma Sénégal ci boppam moo ko digoon FMI yokku gii dina koy amal turbine yéen kaay ne moo ne day FMI lu toll ci téeméer ak fukk ak ñett ci milliards jox na ko Sénégal ngir ay financement booba les éco yéen kaay ne ma bul dem Khalifa Ababacar Sall ma nga ca waajtaay élection présidentielle yi nee na candidat bi gën ñoom a ñoom taxaw Sénégal te bu leen Sénégal te bu leen Sénégal falee xam ne ñoo fi mën Walf Quotidien ne ma boobu dañoo mel ni ko fàtte détermination président Macky Sall day troisième candidature bi day kenn mënu ko koo xañ bi ci tànku bañal ko ko boo moytul na confrontation mënta ñàkk tribune yéen kaay ne ma en tout cas 2 février bii moom Ousmane Sonko dina dem ci tribunal ci plainte Mame Mbaye Niang Les Échos yéen kaay ne ma parquet bi ci coowal Sweet Beauty li daal di nay sàkku nag Ousmane Sonko ak Ndeye Khady Ndiaye daal di dem ci tribunal ñu àtte leen la des nag muy dogal ba mujj moom doyen des juges moo koy jël waaye fi mu ne daal parquet bi moom pare na ngir dem procès L'Info yéen kaay ne ma libération Papa Alé Niang taxawati ci table bi lu toll ci téeméer ci personnalité di ko sàkku moom Papa Alé nekk sa laasitem bi ci guddi gu bër setagul feebar ba sonn lool le mandat yéen kaay ma lu mu neex neex bu leen fàtte coowal ji lax sédiment ak ndengleer gi coowal suuf goo xam ne tax na baykat ya nekk diggante gox goo ne la watunu ba yandoor njiital sédiment Babacar Ngom ñu koy tuumaal ne dafa nangu seenu suuf ba tey nii France daal di xidéem baykate ñaxtoo nañ fu ne yuuxoo nañu wàllu fu ne sàkku nañu ndimbalu nguurug Sénégal fu ne te ba tey moom Babacar Ngom sédiment ma ngay wéy jël seenu suuf di ca def la ko saf booba askan wa ñàkk seenu suuf ñàkk fanu bayee jooytu gëstu fu ne France daal di laaj ba samp moom moo di ndax Sénégal nag dëgg-dëgg du ndumbelaan doon fi ndóol ñàkk fi nekk ab tooñ ak lu mën a am mbokk yi nañuy ñaan jàmm te yendoog jàmm